alhamdulillahi wa salla abada ala alladi bihi lana alhuda bada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawi wali wa radiyallahu an cheikhina wasilatina ahmad ibni muhammad ibni habibillah xadimi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi bokki jullit yi bokki taalibe yi nga xam ne yéen a ngi baaxoo ànd ci jataay yi nga xam ne ñu ngi koy amal te duppee ko gàttandu màggal ngeen di ci ànd ak ndaw yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir jumaay Serigne Touba ju mag ji fi Touba ngir rek gën a mën a fàttalante ak bokki jullit yeeg bokki yi nga xam ne ñu ngi waajal bis bu màgg boobu nga xam ne mooy màndargaal tukkib sëriñ bi di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar tey jii nag ci jotaay yooyu ñu ngi cee ànd ak Cheikh Mouhamadinil Bachir. moom sëriñ Abdul Xaadir mi nga xam ne moo yor kàddu sëriñ bi te sëriñ bi itam dénk ko lépp lu aju ci màggal gi ak lu koy yéwénal mu jiite kuréel gi nga xamante ne ñooy taxawu màggal gi ci anam yëpp. ñu bëgg a seq ak moom ab jotaay nag jubluwaay bi lenn rek la mooy ñun ñëpp ñu bokk jariñoo njariñ li nga xam ne sëriñ bi diggee na ko ci ku màggal bis bi nga xamante ne mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar. li ciy tax jariñu nag mooy xam bu baax a baax li wundu bis bi ak naka lañ ko war a màggalee wala naka lañ ci war a taxawee ba amee ba góobee ci li ci sëriñ bi diggee waaye itam yan melokaan lañ war a ñëwee fii fi barab bi nga xam ne mooy jumaa ji te mooy daanaka jubluwaayu képp koo xam ne yaa ngi ñëw Touba kon ñetti tomb yooyu danañ ci seq ab jataay bu tënku ndax sëriñ bi amul uh, waxtu wu bari lool lim ñu cëralee ci waxtu sax ngir fàttalante ak ñun mbokki taalibe yi ñu ngi ko ci ameel ak cant ak ngërëm bu wér a wér kon sëriñ bi e, xam naa laaj bu njëkk bi nga xam ne dinaa ko jébbal te mu baawoo ci ñi nga xamante ne mooy bokk yitteel ñi nga xam ne ñooy mbokki taalibe yëpp mooy sabab bi nga xam ne rek moo waral ñuy màggal ndax fàttali gi waxtu wu nekk li ci alxuraan waxoon mooy tax muy am solo ndax dana jàjjiwaat yeesalaat pas-pas yi. li waral màggal gi nga xamante ne moom la sëriñ bi woote ci ñu santle ko ci yàlla ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar euh, booñ ci fàttalee ay ay ay kàddu bu ko defee ñu ñu laytaayalee ko jataay bi bala ñuy ñëw ci nan lañu war a màggalee ak nan lañu war a ziyaare barab bi incha allah bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bokk jullit yi bokki taalibe bi bokki réew mi yëpp ñu leen di nuyu bu baax a baax di teg nuyoo bi ci loxol daaira muqaddamul xidma bi nga xam ne ñoo taxawal jataay bii ngir bëgguñu ñu fàttalante ndax fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin di leen sant bu baax di leen gërëm ci seen taxawaay ci dëkk bi ak ci jumaa ji ndax dëkk bi kat li muy yaatu yaatu jumaa ji mooy xol bi kon nag ku yàlla defal tawfiix ba suñ bon tànn la bokk la ci boole la ci ña fay liggéey suñ Tuubaa na nga xam ne eh, dàkk bëggu suñ bi kenn ko jox ndax jumaa ji xam ngeen li ci suñ Tuubaa ak lim ci deele ci lu yàgg kon loolu jëru dellusiwaat jàpp naa ne taalibe bi yëpp xam nañ ko li ëpp jullit yi xam nañ ko di fàttali rek li nga laaj ci màggal Tuubaa yi màggal gi moom li ko waral mooy nekk ko suñ kilifa yu baax ya daa wootee rek ndax sëriñ bi ci boppam moo ko wooteel boppam ci njaareem dat yi nag dafa wuute ñii dañoo wax vingt et un ñii wax vingt deux waaye li gën a war soru ñaar yooyu kon lu gàtt gàtt rek lu ma juróom ñaar sëriñ bi màggal na ko ci njaareem ndax dañoo wax ne li indi histoire bi xaw a jaxasoo yenn yi dañuy wax ne sëñ bi da ko màggal tey ko xëy na nag yooyu ñenn ñi li bi ko sëñ bi wootee loolu lañ xam waaye lu ci li ci am solo rek mooy bis ba nga xamee ne euh, sëriñ bi bàyyikoo na fi dim liggéey la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ni ko sëñ bi laat waxee woon rek muy contrat boo xam ne diggam ak rasulullahi sallallahu alayhi wa doo doon contrat ba nag boo fekk na moom daraje xutbaani ya moo tax ni ma ko waxee ci sama wax ji keroog moom moo waxoon ne ba may dem ci géej gi liimaan ak lislaam ak lihsaan ñëwuma ci nabiyul mursal waaye ñëwuma ci mu xarab kon li ko taxoon a jug nag mooy ni mu ko waxee loolu boppam rek daa séen lu màgg lu kawe loo xam ne kenn mësu ko kenn kenn mësu gis lu ñu toll ci ci ab réyaay moom nag suñ boroom wax ne ana ko may indi lii waaye indi nga dafa ami sart nee na ñëpp ne cell ci nitu yàlla yi loolu ci ci ci ci eh, du du suñ si nitu yàlla yëpp daw ko ndax na ko sëñ bi daal waxoon rek lay dellusiwaat mooy néewaa na ko mas agsi fii ngi agsi seen cër suhudaa yi xemmeem leen waaye ba mu ba ci biir dañuy rëkki ak wilaayam ak waliyam walaam bu dem ba su ma war solo saafiliin waaye sëñ bi jom ji ak fit wi la ma waxoon rek la ma waxante woon suñ borom ne ko waroo gi de laa bindut ba xam lu mu attan lu attanut waaye boo ko attanee de jom ji ak fit wi attan na ko suñ borom xamal ko ne ko laa tax sa inna allaha maana kon loolu mooy yoonu géej gi loola nag Serigne Touba wax ne ba suñ borom xame xam leen ana ko may indi lii itoo nee na ba mu ko waxee rek ba ma xamee ne suñu boom wax na ko laa xam ne lu man am la hmm. ndax yàlla du santaane lu dul am moom nag ci jom ji ak ak ji rek mu dem mu dem liggéeyal rasulullahi ay at yoo xam ne dafa gàddaay ñu ngi ko waxee xusuur yi xalat wal ahlu hani tafarraxat loolu rek doon na sëkk boo liiree gisaa sukkur xam euh, sa coono boo ci gis rek hmm. da ci ngir xam sëñ bi xat-xat yi mu nekkoon tolluwaay te du feeñ ci mbind mi ci wax yi rek ngay xamee ne sëñ bi ngi doon jànkonte lu métti waaye jom ji wax waxeenu arab bi mal gi boroomam am yaqin ci ne la muy wuti dana ko am te dana dellusiwaat la ci gën a yéeme ak Cheikh Ibrahima Fati daana ko yéem ndax moom la battale woon njaboot gi la ci gën a kéemaane lépp ci leetar yi bu ko bindee ba dana danaan ko na seenum xel da duma leen fàtte. ci ku ci tumuranke ñu mel ñu mel dañ laa sànke ñooñu war di ngay sàkk ci ñoom ñaan ak ndimbal. moom mun naa leen na seenu xel daal dama duma leen fàtte ci ñaan. kon sëñ bi xawoon na fa mu mu jëm. ànd ceeg jom ju métti. ndax am ci ab këri fur lañ ko yóbbuwoon. bàyyi ko fay at. loolu juróomi at. nga xam ne léeg muy taw ci kawam. bagage yi diis lool. waaye lu mu bari bari bu foofu xam ngeen ne bokkut fii suñ climat taw bi day jege léeg mu tàmbali bind mu xiin mu jël roñal bagage yëpp te nungur kenn dimbali ko ci noonu la fa sëñ bi nekk saa suñ xëyee di ko métti te luñ jàpp ni moo gën a métti ci moom ñu def ko ko waaye mu di ko dikku ngir xam ne di moo yàlla ci kanamam lépp mu wax ne ndegam raqib raqib ak atit ñi ngi jàkkaarloo moom te ñi ngi koy muñ ñoom waruñ ko dàq gën a muñ noonu la fa nekkee di liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci mbindam yu mag yooyu nga xam ne ay xaaj la moo ko bindal boppam am na ci yoo xam ne daa wax ne lam ya jus wala ya jus ibrasuha li kaw neexe asrar ilahiya loolu yu dox diggam ak borom la mooy makkaati bi ngeen dégg bokk tag yi muy tagge rasulullahi ak yi muy julli ci ak yi muy def asana alallahi kon loolu mooy liggéey géej gi ba yàlla def samaani xijajin illa xalilan sëriñ bi ñibbi si tam manqué tuuti ñetti la la ca desoon nag weer yooyee mooy motli li eh, tukkib gànnaar ba mu wax moo tax mu wax ne tukkib géej gi bokkut tukkib gànnaar gi tukkib gànnaar gi ak pay la woon tukkib géej gi nag daa jugoon ngir wuti benn dañ ko doon fay ndax nee na suñ borom doo ko xawal ne suñ bi ko daa nettali mboolem li li li des ci lu baax ci kaw suuf nafa xaw suuf su mu gànnaar duur ko fa loolu la jëli moo mu ne man zanna zayri xibba aami aksasi mithla masiri rasa aami jaysasi thabata kawnuhu jahulan xumra bal huwa ali lil umra lam yakun aksasin siwa jasa man liya baadu qaad man liya qaada baadu ala najasa ngeen la taxoon yóbbu ko mooy tubaab bi ci seeni xam fu ñu ko ma a yóbbu rek xool nañ ko bu baax ba xam ijaab bi xam sal bi lu leen mën a juri ci njëriñ ak li mu leen mën a yàqal booba nag wax nañ ne nit ku ñuul dafa complexe ci naar bu fa demee moom ci boppam bu gisee naar yi lam doon dootu dootu ko wootati ci seen kanam ñe daa jug di ko siyaare mu gën a leen seen jëmm itam ñu demee ba àgg ci moom ba gis kilifa naar yi mhm. dootuñ ko tal ci ñoom lañuy dem bañ demee naar yi ña ci ëpp ci moom ku ci jébbalu ci jébbalu ci moom itam nangu nga mbiram ba nëgë ni gànnaar da ngay dégg ñu wax ne ñoom dañ naan la mursali gépp mbirum mbirum Sëriñ Tuubaa képp lañ dëppoo. nga xam ne kay kay murit kay xaadir kay tijaan kay leneen kay chosari ñëpp maas ci nangu wilaay ak Sëriñ Tuubaa ñëpp maas ci nangu ko ñëpp maas ci bëgg ba nëgë ni ma ngay feeñ ba fi ne boo fa demee. général yi ak ministériel yëpp la fa am ci turandoo day mel ne amu ko Sénégal te ku ci ne fu fu mu jaar ak sëñ bi moo tax moom ba yàlla def ñu mujj gis ne feedaal bu fa sëñ bi yàggee dana mujj alaalamu islaam mursal mooy seen bunt kon mbirum Sëriñ Tuubaa dana tasaaroo ci alaalamu islaam te fu fu mbindam yi àgg ak ci gindikoo ñëpp ñëpp dana danañ mujj doon ay murit moo tax ñu delloo su ko Sénégal ko yóbbu nag ci barab ndax daaru maanaam la waxoon ne fay ne atazalukum falum yuqaatilukum wa alxaw ilaykum salama am na ci wax daa wax ne wayn janaxoo li sadmi faj naa laha fa li mu wax ne laa xujjata baynaa wa baynakum fu ci ne rek am na lu ko boroom xamal waxante ko moom ba ba ba ba àgg ci njariñ foofu bañ ko yóbbu dañoo wax ne sori na nit ñi mënuñu faa dem ndox amu fa amutu yoon amul dara ñu àgg foofa nag sëriñ Touba nag am jotul nag mën a defar nit ñi da ko taxoon a jóg muy defar nit ñi ba nit ñi àgg ci mel ne ay malaayika ci seen digg seen borom dëddu àdduna àgg fees seen seen digg seen borom ñu dem ba gis ne lii itam jëmul kër ñu waxtaanaat seen biir ne kon fii moom gis nañu bu yàggee ku fi Serigne defar ak ñi muy defaraat dana mu gis Sëriñ Tuubaa gépp Sénégal gépp ay Sëriñ Tuubaa lay doon kon nañ ko indi ci taax yi ñu ngi ko indee njaarim njaarim cinéma yeeg ak taax yi bari na bari goo xam ne ñaxas rëcc jeex nañ ndax ñoom waxtu ne ndaw ñi ndaw ñi ñoo leen di gën a itteel nañ ko delloo si fii boobaa ñaxas rëcc jeex na waaye ñi toll ci àdduna nag cinéma yeeg marché yi daay leen fab ba ko tal moo tax lépp lu indi ak taax ñu ko fa fekk na boo xamuñ ne njaarim fala la sëñ Tuubaa mbiram di feeñ bu faw moo taxoon mu wax ne raamu ma siri ila jurbel la daal la sasi law aayeenoo sirra maa fi sayir ma raamu njaarim nag sëñ Tuubaa fa la xar baax yëpp feeña la sëñ bi laxaat doon wax ne daa mujj xar baax mm-hmm. njaarim xar baax moo fi baax. sëriñ bi di ko fuglu. di waajal nattu yi. suñ borom xamal ko ne ko nattu yi jeex na sax pay ci des. nattu yi itam na pay gi gii na nattu yi daa deme ni la demee. saa su waxtu yi ak kenn ku ci ne da nga yëg xéewal gu yokku ci yow. goo xam ne bis bi yaram mooy. sëriñ daal nett ne Cheikh Mouhamadou Moustapha. ko wax ne ko sabaay de nee na ma. Mhm. bisam bii de koo koy màggal. àjjana amutu bis waaye buñ demee ba àgg mhm. eh, bis ba mu daa jot ci kaw ba eh, yàlla ma bindoon adduna mhm. bis ba màggal gi daa jot ci kaw suuf ci suuf mhm. boo agsiwaatee foofu kenn ku ci ne da nga yëg xéewal gu dolli ko wàcceew gu waxee ne màggal gi doon màggal màggal gi moo doon kon màggal gi du du loo xam dañ koy def ngir dàkk bëggu suñ bi du loo xam dañ koy def ngir dàkk tuyaaba waaye ndigalu Serigne Touba la. ma waxoon rek laay mm-hmm. ndigalu Serigne Touba loolu mu joxe. Mm-hmm. tam ñore woon ko ni mu ko ñore. Mm-hmm. bernde moo ko daa séddale boppam moo ko daa defal boppam. mu ñore ko lu ñore noonu sëñ bi daale ci lim ci daale. Serigne Saliou Mbacke wax na ne Serigne Touba neewoon na. ñaar buñ dendee kii di ko fonk kii di ko ñàkk fonk. ka ka koy fonk waxtu na muy séntu ko tibbee. moo tax Cheikh Mamadou Fadil. bi ko Serigne Touba wootee. limub at yim ko at woote 21 ba 1927 euh, ak Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke ñëw hmm. woyale ko ne ko Serigne Touba daa digle hmm. mooy kenn ko ni ko di ko defe sa kër ku ci di ko defe sa dëkk hmm. bi Cheikh Mouhamadou Fadil Mbacke ñëwee nag ci la ko woote Touba kàddoom yi ñëpp dégg ko ba nekk ni mi ngi fi la mu waxoon illa ja taxoon mu wax ne moo tax mu woote ko noonu nag la ko njabootu Serigne Touba gépp woyale ba nekk ku fi nekkal Serigne Touba bu accès bis bi muy sa yitte nga def ci sa jom ba fu mu àggul mu weesu ko moo tax daaw bi coow li bari ndax lii xew Cheikh Mamadou Mountakha ba ba may wax dane ma na nga xamal ñëpp ne yaar rek ma fi bàyyi wattu ak sàmm wattu li ñu fi bàyyi woon ak sàmm li fi suñ bàyyi kon nag dara lu may soppi niwu fi lu weesu la sama kilifa doxaloon ma wéyal lool rek naa amul lu may sosaat kon la loolu mooy màggal gi yàlla nañ ci àgg ak jàmm. amiin Mbacke jërëjëf ci leer na nañ ci lan moo sabab ma màggal gi ak ni nga xamante ne noonu la ko sëriñ bu mag bi doon dundale la ko dale ca ba mu ko sosee ca 1921 ak 22 ci eh, ni ko sëriñ bi waxee ba fii fii nga xamante ne moom la ko Cheikh Mouhamadou Fadel wootee fii ci Touba. Eh, ginnaaw màggal gi nii la sabab yi rëyee eh, nii la ko sëriñ bi fonkee murit bi màggal si moom naka la war naka la war a màggalee naka lañ war a màggalee ngir ñu góobee ci li nga xamante ne mooy mbégum sëriñ bi ndax leeral nga ci biir wax ji ne eh, màggal gi du lu ñu dàkku bëggu sëriñ bi waaye ndigalul sëriñ bi la lum joxe te ndigal moom ci ab murit eh, na digal nañ la ko digalee nga defee ko noona day tax lañ la ca dig ci njariñ nga jot ci kon naka lañ war a màggalee ak kuy màggal si nan la war a waajee ba nga xamante ne bu dikkee dana dëppoog mbégum sëriñ bi ngoogu nga xamante ne moom la wax ne bis bu dellusee képp koo xam ne sama mbég sa mbéga na nga koo màggal. loolu itam lépp suñ tubaab da koo leer. Hmm. amut lu ñu daa waxoon ne bis bi. Hmm. li tax mu di ko mooy sant yàlla suñu borom. Hmm. bëgg ñëpp sant la ko yàlla ci li ko defal. loolu leer na. luñ ci dolliwaat rek waxi suñ bi kenn ko commentaire. dëgg la. ni ñu ko war a defee moo ko digle woon mhm. ba mu ci njëkkee def ab gàtt la ci rey sëñ Mulaay Buso mu sëñ Bàkki Buso mhm. moo ko ko joxoon mhm. mu doon gàtt boo xam ne aw bëy la woon sëñ Tuubaa soppili ko defu am xar xam naa yéen jàpp pëstéef moo tax ah, ndax xam nga ne ay xar jëfewutoon ci kër sëñ bi ah, waaye pëstéef sëñ bi moom ah, lu ne moo xam la tax bu def ko ndax lu mu defee def ko ci nen waaye kon luñ ci def rek la ci jiitu mooy bernde yi ndax loolu loolu màggal la màggal la dégg naa sama kilifa bu baax bu ko faral di fàttali mm-hmm. waaye màggal gi mm-hmm. la ci jiitu mm-hmm. mooy la Sëriñ Tuubaa boppam lu ci waaye man na ko ci defal di tàmbalee ci ginaar ba ci gëléem kon loolu mooy li jiitu ci li ñu war a def loolu itam buñ ko def ngir puukare nañ ko def ngir sant yàlla Sëriñ Tuubaa ci bis bi ndax suñu borom moom lu baax ak lu bon lu ci ne da koy neex rek mu daganal ko li bon da koy neex mu bonal ko waaye lépp yam ci moom boo xooloon tabaski tey boo julloon téeméer rakka nga rey suñ borom nga rey xar mi eh, dundale ko su su la sayidna ibrahima gën a suñ borom ci bisu lan yanaala llaahu luhumuha wala dimaahu walakin yanaaluhu taqwa gis nga bisu kori koor li muy baax baax bu weeru koor joxe jeexee hmm. bisu woor ko dafa araam kon du caageen dangay ngay xoole li dëpp sama xel rek la Seydina Aboubacar inna dina mabniyun ala naqli hmm. kon lii itam loolu mooy di ci jiitu hmm. la ca des mooy delloo suñ bopp ci yàlla ndax kuy sant yàlla sant yàlla ñetti xel la cantuk làmmiñ cantu xol ak cantu jëf cantu xol mooy wama bikum min ni'matin fa minallah mhm. mooy lépp lu am rek nga xam ne xéewal gi suñu borom lu bàyyi ko mhm. cantuk làmmiñ it mooy la in shakartum la azidannakum mhm. cantuk jëf nag mooy i'malu ala daawuda shukran waaye nag gis nga lam ca teg wa qalilun min ibadiya shakur kon sant yombut euh, bokk na ci it boo koy seet shukru wax ne bokk na ci maqaamatul yaqin kon dara gën ko rëy ci bis waaye nag nañ koy defee ni ko sëñ bëggee la ca dolli ko waate mm-hmm. mooy ñu bañ cee dugal àdduna bañ cee dugal puukare mm-hmm. ndax Sëriñ Tuubaa faggul faggul kenn adduna maa ngi koy wax léegi wax na ko Cheikh Mamadou Moussa ak Cheikh Mamadou Fadil mm-hmm. wax na leen lim leen faggul neen àdduna du ko faggul kenn kon nañ fexe ba mbirum Sëriñ Tuubaa kuy lijjanti adduna nga lijjanti ko ci sa wàllu bopp ndax loolu nit ak nit la nit ndax nit mënta ñàkk dund nit mënta ñàkk sol nit mënta ñàkk ni ci àdduna mm-hmm. waaye nag bu ñuy rax mbirum Sëñ Tuubaa mm-hmm. ak mbirum àdduna ji mm-hmm. nañ ko nañ koy nañ koy xàjjale ndax loolu lépp ci pexe seetaan yàq yàqal gi ci la bokk kon na ko sëñ bi digle woon rek loolu mooy li ci jiitu li nga xam ne njabootam gi ko santaane itam ñoo ko digaloon taalibe yi loolu itam ñu góorgóorlu ci la ci jiitu mooy njàng alxuraan jàngu alxuraan bi waa kër ñoo ko santaane mhm. ne nañ koy def addiyee rasulullah ak addiyee Cheikh Xadim Cheikh Abdou wax na ko ba tàyyi Cheikh Mouhamadou Cheikh Mouhamadou Fadi sax mhm. wax na ko ba tàyyi Cheikh mhm. Abdou Lahad wax na ko ba moom sax da ko leerloon benn bi addiyee rasulullah benn bi addiyee Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Abdou Khadim Mbacké itam wéyalewaat ko noonu bi Serigne Saliou Mbacké ñëwee la waxoon na nañ ko ko defal ñetti kaamil mm-hmm. kon nag day mel ne ndigal la Seex Saaliw mu joon wax mm-hmm. ñu ko fi wutuwaat ginnaaw yi loolu la ñu wéyalaat mm-hmm. mooy benn bi addi rasulullahi sallallahu alayhi wa ndax Sëriñ Tuubaa lu ñuy def rek foofu dañ ko war a ba ci def ko addi Cheikhul Khadim yeesalaat suñu jaay suñu digg moom ba ci res nag mooy ñaar ki fi nekk Sëriñ Tuubaa bu yàgg fi te ab liggéey kon loolu mooy da ci jiitu euh, la cere resit ne ko suñ kilifa yi daa baax yi daa waxee rek mooy ubbi kër yi dalal gane Sëriñ Tuubaa yi loolu moom ñu ngi koy sojj waa dëkk bi te kenn ku ci ne itam nga xam ne am nga taw feexe dëkk dëkk ak Sëriñ Tuubaa taw dëkk ak Sëriñ Tuubaa na kon na góor góorgóorlu dana jafe nag ndax marta di nit waaye ku ne na góorgóorlu bu fexe ba bu fi gan gan ñëw mm-hmm. gise coon lu muy xeeb ci yoon wi ku dikk ci moom daal ndax dafay ñëw ngir dolli ko. ku fi ñëw dafay ñor ngir pësteef ku fi ñëw dafay ñëw ngir sellal yéenam. kon ku ñëw ci moom bu ne na feex ba woon ko suñu tubaab bañ ko woon boppam. loolu dara jiitu ko ci li ñu war a màggali bu fekkee fàtte moo ci dara. li ci des nag mooy conférence yi ñu ciy def. benn day xam-xam yi loolu ci jamono Serigne Saliou la tàmbali. loolu itam lam ci juul mooy ñi ëpp. la jëkk loola. ñu bari dañ daa màggal si ba dem. Hmm. ñu xam leen tax a jóg. Hmm. ndax nit ñi moom dañoo bëgg sëñ bi ba dof ci moom. Hmm. lu dul sëñ bi nag seenam xel la ciy jëfandikoo. dëgg waaye boo indee sëñ bi moom ñu fàttali. dëgg la loolu suñ tubaab suñ borom defal. dëgg la ñoom defan ci rasulullah jeex ci moom ba gisatul dara. loolu la ko suñu borom fayee ca Italie bi. nañ ko bëgg ba lu leen sëñ bi wax duñ ca xalaat. tubaab bi sa seer nañ ko ba tey. Eh, moo tax nag. conférence yi ñu ci def at yi yëpp nag. Mm. tax na ñi ci gindikuutoon xam li ñu def luñ doon ndax la ko jëkk. Mm. lu ne daa ko dégg murid yi dañu am seen màkkee bopp. dañoo am seen ajug bopp. <laughs> dañuy war kaaba ga. Mm-hmm. dañuy tawaaf dañuy def nangam. aynu rahmati ñu tudd ko sam-sam loolu lépp déw na aynu mm-hmm. rahmati xam ngeen cosaan la mm-hmm. sëriñ bee ko bëndal boppam alhamdulilahi jazili ni'mati ala xuruj ma ay na rahmati wax ne man naa saafara lépp loolu kon du du jàppewuñ ko ndoxum sam-sam barkeelu boo xam ne Sëñ Tuubaa ko def du bidaa du dara mhm. loo xam ne ndigalu Sëñ Tuubaa la te ña dem ñëpp itam ña ngi gis njëriñ li ku fa dem ren saa soo demee boo ko dellee doon day gën a xam loolu résultat la waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf ci leeral yi leer na naññ day mel ne képp koo xam ne topp na jotaay dana yëg bu baax a baax xam bu baax a baax naka lees war a màggalee ginnaaw bu xamee cosaanal màggal gi beneen bi ñu ci dolliwaat te moom la ñu tëjee mooy ñi nga xamante ne ñooy màggal si nag ndax waa dëkk bi jël nañ seen wàll wàllu baax a baax ci wax ji te mooy dëkk ak Serigne Touba eh, taw feex kawewu ko kon ñi dëkk ak moom war nañoo xam gani Serigne Touba yi ñëw nan la ñu war a jëflanteeg ñoom waaye gan ñi ñëw te ñoom ñu war a ñëw ci ay barabi ziyaar teggeen yi nga xamante ne war nañ koo sàmmoonteel bu ñëwee ci barabi ziyaar yi rawatina ci jumaa ji ñooñu lan nga leen di dénk. waaw loolu de moom masjidu seyxi jaamiul barakaati wa mahalu rahamaati wal la Cheikh Mahmoudou Fadi Mbacke waxoon rek laay fàttali ndaa hmm. siyaare ci barbu Cheikh Xadim ci pësif bàgg ma hmm. génn daan ay waay wattandiku deen miineel hmm. ndax loo miin yëpp te loo yëpp xeeb te doodoo ci kon loolu laaj ci ku ñëw ci dëkk bi dëkk bi li muy yaatu yaatu yaatu li muy tedd tedd tedd mm-hmm. jumaa jee fi gën a màgg ndax fa sëriñ bi nekk mm-hmm. fa dëkkoon fa nekk mm-hmm. moo doon këru Tuubaa këru Tuubaa gi ak këru bayti gi loolu moo doon kër kër sëñ bi kër gu rëy la woon nag xam ngeen ni mu demee waaye fii mooy barabu sëñ bi sëriñ bi itam kon fu mu ne nañ xam ne dañ koo gisul waaye mi ngi ñuy gis. suñu am sori jaaxal daana ko wax. Mm-hmm. ku jàpp ne Sëriñ Tuubaa daa ci kaw suuf. Mm-hmm. umpule nga. Mm-hmm. kon ku ñëw ci barab bii. muy sa yaakaar àdduna ak nga aj ci sa lépp. ndax ku dugg ci bàmmeel Sëriñ Tuubaa rek la yaakaar. te bàmmeel xat na. lëndëm na metti na kumpa ga bari na. al bisu penc te lu si gën lépp nag Sëriñ Tuubaa lañ ci yaakaar. kon nag yaakaar gi yaakaar Sëriñ wóoruñ ko fooyee Cheikh Maodo Fadi daa wax mhm. nit yaakaar bu ko fooyee kon Sëriñ Tuubaa nañ ko jël def ko ci roog seen mhm. te buñ xoolee ci njabootu boppam gi mhm. ku si ma ja jox barab bi ak pëcceefu Cheikh Mouhamadou ci ci ñu bari xam àgg na ci bu mosaan dugg ci barabu Sëriñ Tuubaa day summi kaala gi summi mant bi teg dugg ci biir yàgg fa lool kon ñooñ ñoo xamoon sëñ bi ñoom ñëpp na foofu lañ foofu foofu lañ nekkoon kon ñi ñëw ci jumaa ji mm-hmm. ak ñi ñëw ci barab bu sëñ Tuubaa mm-hmm. nañ ñuy fexe bay joxe image bu leer mm-hmm. image bi nañ ku fi ñëw nañ xam ne fii barab bu sell la barab la boo xam ne du barab bu wanewu ndax dégg naa xew na lool man sa yàlla dama dimbali yooyu dama ci nopp la ah, ndax gis naa ne lañ ca nar da ci coono ci di ko xool Eh, feexe ba la ci ëpp nga jëmale ko jàng alxuraan xasida moo gëj waaye nag jamono ji dara umpeetu hmm. barki dem wax naa ko fii ay nit fekk ay nit ak si tàmbalee di wax am ko ñu filma am ko leen bëgg te mën a ko jëratu ko chaque information kin mënatu ko jamono doxe noonu kumpa amatul fenn ci àdduna hmm. loolu def fii ci kër Sëriñ Tuubaa gi balaa mat waxtu boo yeexa kenn Amérique ak Canada ak France ak yëpp yëkk kon loolu jëratu sonn li am solo mooy looy def waaye looy wax nga di ko xam. waaye jumaa ji itam nañ xam ne du barab boo xam barab pukkariwu la. Mm-hmm. barab bu ñëw naa jumaa rek jumaa ji di mm-hmm. fatoo ko génne. Mm-hmm. loolu tax ko jóg. barab ba la barab boo xam ne ku fi ñëw da ngaa war a yëg Sëñ Tuubaa. da ngaa war a yëg ki ne ci biir. war a yëgit ne sa xetlu ko àdduna alaaxee fi la ne. bu loolu bu nekkee ci sam xel nga di ko teewlu. da nga tal leneen. lu weesu ne fa di waxtaan wala nga ne fa di yëkkati sa kàddu. Hmm. loolu tam xew na lool. Hmm. xew na lool. Hmm. man sax dama ci jaaxle ajjuma ji barki démb rek. jug naa di ko ndax nañ xam ne jumaa dafa sell wa anna al masajida lillahi falaa tad'u doomu llahi ahada te bëgg Serigne Touba Serigne Touba am na ko mu ko waxoon diw mu ne ko Mbàkke. kooka dafa am nu mu doon doxee. mu ne ko diw. nee nga bëgg nga mu ne ko waaw mu ne ko waaw Bakke mu ne ko nit boo ko bëggee dangay ngay da ngay seet lam nekk nga ne ca. Ah. te xam nga ko fonk julli la mm. kon fonk julli. kooku Mbàkke la sant. ab daan ko loon ku ku jàmbaari tempsif waaye li am solo mooy nañ xam ne jàkka dafa sell. Mm-hmm. nit ñi xew nag Cheikh Mouhamadou Mountakha. Mm-hmm. ci làmmiñam laa nangoo. Mm-hmm. bi ñu koree ba bis bi a juma ji ci jëkk wax na ma ne man de jumaa ji dama ko def liggéeyal Sëriñ Tuubaa ndax lépp lu may def ci jàmm yàlla rek dama koy def ngir jëmmi suñ borom ndax loo tax ñu bind ñu mm-hmm. waaye tuwaa tuyaaba ju ma ci am mm-hmm. addi Sëriñ Tuubaa la ko def julli gii may julli si ajjuma rek lu ma itteel la mm-hmm. ngir poster sama digg Sëriñ Tuubaa waaye de agg naa ci jaaxale ci nit ñi ni ñi def daanaka metti na ci man metti goxo ne adduna ji ñu ci bëgg dugal daanaka xaw na maa jaral ba ñu julli ji. moom ko ci lam ñam te ko dem laaj ko mu la ko. maa moom yàlla. kon loolu itam nit ñi nañ ci gën a bàyyi xel. Mm-hmm. ndax sëriñ bi jukko ñu topp ko lu baax rek la ci jublu. ak xëy ndax suñ tubaab nit ñi amuñ coono sa gox. njaarim demoon na ba suñ bi wutub barrière. wër la ko ngir ni ñi amuñ ci amuñ ci sëñ bi sago loolu moom moom mënuñ ci dara mënuñ dara ci ñàkk sag bi ñàkk sagu suñ dëkk seen dëkk suñ tuwa ndax ko ko ci ëpp rek suñ tuwa di gën sa lépp waaye nag nañ koy gën a sellal di xam ne day mujj sax lañ ci juuloon ci lu baax boo mm. yeexee safaan ba lay nduru mm. ndax teggin ay teggin boo demee ci mag ñi mm. am na ci ñu baax ñoo xam ne buñ masaan dugg ko di sumbi seen daal foofu lañuy siyaare mhm. ngir xam suñ bi xam dara jàmm kon ku dugg ba ci biir jumaa ji nag di yuuxu ca kaw a kaw loolu mi ngi bëgg àgg foo xam ne mbir bul xool fa mu tàmbalee waaye fa mu jëm nga xam dana mujj ki fi ñëw sax da da dana ko firee nu ne mhm. wala li xew ci jamono léegi mhm. mooy loo def ñu ne shirk na. te hmm. murid yi kenn bokkalewu ci. ndax ku jàng mbirum Sëriñ Tuubaa doo bokkale. suñ borom tawhid Sëriñ hmm. Tuubaa li jiitu ci ay ay téeram tawhid la. Hmm. murid yi bokkale wuñ dañoo bëgg Sëriñ Tuubaa nag Sëriñ Tuubaa gën a leen seet lépp. waaye nag nañ seet na dañoo ne ci biir àdduna. seet na dañoo nekk ak ñoo xam ne bokkuñ luñ gëm. kon nag la tax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam demoon ba àgg ci. taalaw ila kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum allaa na'buda illallaah kon loolu jëmbu doomu aadama mooy xam ne foofa la seen gëm-gëm toll fa la seen xalaat toll ba ci yi mu doon siñeenteeg yéefar yi sax dégg ngeen ko ci histoire day day gudd waaye ba mu ba mu bindee Muhammadu Rasulullah te ñoom gëmuñu Rasulullah ji waaye gis ngeen lépp ci histoire yi fu mujje waaye li am solo mooy nit na ci pëstéefam te dara bañ koo yàqal te bu mu geesu bu mu ndax allasiina yu'minuuna bil ghaybi mm-hmm. moo jiitu ci alxuraan. Mm-hmm. allasiina yu'minuuna bil ghaybi kon pësté fi nañ fexe ba góorgóorlu ci. Mm-hmm. te dara bañ ko yàq. Euh, alaaji suñ bu sa ilibaan mooy waajur moom moom waajur daa doon koo xam ne ku ku ku yàlla defaloon tawfiix la. ndax sharia ak xaqiiqa ji mënoo xam lenn lu ci ëpp sama morom. ni mu fonkee lislaam ji kenn xamut fu mu yomb. Hmm. waaye taalibe gi dara dara manqué wu ca. Hmm. danaa wax ne ak taalibe am xel du ko te jàpp naa ne ko ëpp xam-xam ci réew mi bëriwut. kon euh, jërëjëf sëriñ bi ñu ngi santaat bu wér-wér di bu baax a baax li nga ñu cërale ci waxtu te loolu yi koy firndeel rek mooy ñor gu la liggéeyub Sëñ Tuubaa bi ñor am na seen lépp moom nga ko joyal kon ñu ngi la ci santaat bu baax a baax di la ci gërëm. Eh, di waaw bisimilah xam naa wax ji gudd na sax waaye yéene rek. waaw ak eh, santaat leen yéen. Hmm. am xatoo xidma santaat leen ñaaxaat leen. Hmm. ndax jàmbaar ngeen yéen a góorgóor guddeeg bëccëg te liggéey bi ñu leen jox yombut. Hmm. ndax jafe na. ndax foo xam ne fa fa ñëpp soxlaa dem. te nit ñu duñ baale. bu bu bu junni baaxee buñ gisee benn manque ba fàtte lépp. waaye yàlla def na yàlla defal leen tawfeex tawfeex bi mooy am ngeenum dal. ràññee ngeen te li ngeen def itam da ngeen ko séeréer yàlla ak Sëriñ Tuubaa mm-hmm. ak Sëriñ eh, ki fi nekk Sëriñ Tuubaa te dénk leen te loolu rek mooy li ci am solo nag euh, jërëjëf sëriñ bi <laughs> euh, jërëjëf ci kàddu yooyu nga xamante ne kàddu yu soññee la day mel ne jotaay bi mi ngi bëgg a yàgg waaye li ñu ci doon sàkku lépp ak liñ ci bëggoon a xam lépp day mel ne lépp lépp lépp amee nañ ko ci ñu kawe njortu ndax euh, képp ku topp jotaay bi doo umpuleeti dara ci li nga xamante ne mooy cosaanal màggal gi la ko sabab ba ko sëriñ bi sosee ak ni nga xamante ne noonu la ko noonu la noonu la ko sunu boroom fayee lim ko fay ginnaaw bu mu ko tegee nattu yi nga xamante ne jomam ak ak fit bi ak ak bëgg gi yàlla ak na bëgg a liggéey yonent bi alayhi salaatu salaam tax mu yanu ko euh, fa mu jaar ca Mayomba ba ni mu ñibbisee ñu indi ko. ci ci ci ci ci ci lu dul seen sago ndax day mel ne bàyyi suñ muuru ba muy wax ci naxjul xawim dane li ma li ma radduufu dañ ko dellusi ci te sañ bañ waaye bañ ko dellusee itam yóbbu ko ca eh, Mauritanie te wax nga sabab bi te mooy samaan yaa xajajin illa xalilan eh, la ca manqué woon la mottali ji fële ca Mauritanie ba mu yeggee itam wax nga na nga xamante ne ña fa nekkoon ca ñu jàppoon ne ñu jemee danañ fàtte sëñ bi jàpp ñooña ñooña wëlbatiku fàtte seen bopp fàtte seen lépp jop jàpp sëriñ bi eh, ba tax ñu am ca jaaxle indiwaat ko ci yéen jolof mu defar fa nit eh, ñam fa defar ba amatuñu fuñ jëm ñu indi ko njaareem gi nga xam ne fi la lépp nar a baaxee ba tax sëriñ bi santaane fa màggal gi màggal gi di woy ba ni nga xam ne noonu nga waxee histoire bi yëpp waaye leeral nga ñu itam ni nga xamante ne noonu lañ war a màggalee ci ñi ne ci dëkk bi ak eh, tànn gi leen sëriñ bi tànn dëkkook ñoom fii ci dëkk bi ak na nga xam ne noonu lañ war a taxawoo ci gani sëriñ Tuubaa yi leen war a fekk si ñii ñëw itam jox nga leen yóbbal ci teggiini ziyaar ak xam barab biñ jëm si mooy fan ki fi tëdd mooy kan te nit fu mu war a defaroo fu nekk bu sàgganee ba yàqoo fa du am feneen fu muy defarooti wala iyaatu billahi taala kon ñu bàyyi xel ne barab biñ jëm si suñu yaakaari teeg bu ëllëgee sëriñ Tuubaa fi la nekk loolu fi lañ ko mujj gisee loolu itam ñu bàyyi ko xel te sàmmoonteeg moom bu baax a baax li mu daaneele ci kàddu yi te tubbee ko ci waxi Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne kenn umpalewut pasteefam ci Sëñ Tuubaa euh, mooy ni ñu jëlee àdduna di jël ay ay ay téléphone tal suñu téléphone yeeg Snap yeeg Instagram yeeg Facebook yeeg réseaux sociaux yi ba tax léegi-léegi mu soxlaal ñu ba ñu fàtte ki ñu nekk mooy kan ak fi ñu nekk mooy fan loolu itam mat naa bàyyi xel bu baax a baax sëriñ bi junj na ko ci biir waxtaan wi kon képp kuy ñëw na bàyyi xel ne àdduna amul ab cër ci mbirum Sëñ Tuubaa te loolu buñ ko bàyyee xel rek danañ jariñu tey ak bu ëllëgee ndax Sëñ Tuubaa boroomam moo ko ñor yonent bi alayhi salaam la doon liggéeyalee jaaree ko fa mu ko war a jaare ba yàlla wommatal ko lim ko wommatal lépp kon képp ku bëgg a jariñu ci li nga xamante ne moom la ko yàlla jox da ngay fexe ba jëfee ko nim la ko digalee rek te loolu junj na ko ci waxi sidna Aboubacar njooju moo waxoon ne diinu na haada mabniyun ala naqli lala bi munasabati al aql nañu xam ne lépp nañ la ko digalee nga defee ko noonu rek moo la ciy jural njëriñ Mbàkke murid yëpp ñu ngi bokk di la sant di la ñaanal itam nga yàgg fi loolu ta wér liggéey bi itam fi nga ko bëgg yeggalee yàlla bu ci cat amu yoon yàlla bu ci benn ndog am ci barke Sëñ Tuubaa baax mi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu wal tudxilil داري وثبتا بالهادي الوفي